compétence ou ñi nga xamné ne ñoo nekk eaux et forêt ak seen engagement bo xamné ñi ngi xex ndax problème bi du problème mu tay dafa yàgg xex bi yàgg am ay gouvernement sax yu ci dugg ci affaire bi di ci wut xaalis di ci enrichir kon yombul mais mobilisation bi limu wara def am moy ñun ñep ñu and soutenir l'État du Sénégal ci xex bobu euh pour l'olu qui est de ndax du jow ma luy deñ rek ben bis la ndax réew yi ñu sékkal lolu seen économie dafa faible ba pare l'olu ñuy def ñu ci am kom kom li am ku ndar brèche bi dafa dem renseignement ndax régime président Macky Sall fi la ko lu yàgg la jafe-jafe yi wax dëgg yàlla foofu la jóge woon kon ku feebar ba lafañ daanikaam boo koy fajit dangay xaar rek di faj seeti solution ndax alal ju bëri moo ci war a dem leneen li ñun ñi dëkk ci fi nga xam ne dafa am déforestation am nañu ko tudd euh, il faut que comme taw yi dellusi na ñu góor góorlu ci pour njëmbatum garab mi ñu sàmm ko ndax yàlla moo indiyaat taw bi te garab dafa am solo ci am réew monsieur le ministre monsieur le ministre du budget euh, comme yaa yor séddale bi yaakaar naa war nga leen a ruxsa ndax man laajoon naa leen ci affaire oto yi nga xam ne dafa war di fay lakk yi dañ koo soxla bu baax oto yuy fay lakk war nañ koo am oto yu ndox war nañ koo am loolu war nañu seet wax naa ko ministre bi programme ban lañ ciy def même bu dee dañuy ànd ak secteur privé bi bokk naa ci ñi nga xam ne ñun mën nañu jënd ay oto ngeen koy luye ñu ciy mos dara te loolu maa ngi ci joxe ay xalaat bëgg xalaat yooyu ñu taxaw ci ki waxoon it waroon na toog parce que programme ku ñu fal ba pare yaay am programme mais bu dem élection ñu duma la Boko deuxième jëloo ko nga yow ya am programme est-ce que ñun programme bobu doy nañu ndax président Macky Sall programme am bi proposé moy bi nu doy ñu voter ko massivement au premier tour